di ndokel ak sant ak ñaan ak soññee ni ñi ndokel al al islamiyya yépp di ñaanal ñi ci ne ci aw yalla yàlla teggi leen ko ak fu ñu man di ne rawatina nag suñ mbokk ya ca Palestine ci weeru ngëneel bii di weeru mbaax di weeru ragal yàlla di weeru yërma yërmananteeg dimbalante ترى المتلق عام 1445 atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom gannaaw gàddaay gi ci gàttal foo bokk na ci njariñu war ko musal la ci ñaari gàcce yi ak ñaari sawara yi gàcce gu àddina gu àllaaxira ak sawara wu àddinaak wu àllaaxira ni ko sëriñ bi waxee nafu siyaami shahri fi daarayni yakfikumul aarayni wan naarayni kon maa ngi ndokkeel ñépp ci turu sëriñ bi ci teru teg weer wi di ko jottalil cant mbokki taalibe yi rawatina kilifa yi ci pastéef yu dëggu yi ak taxawaay yu rafet yi di ñaanal ñépp yokk ak mucc ak ngërëm di soññee it ngir ñu gën bàyyi xel weer wii yeesal ci pastéef yi yokk ci jëf yu baax yi waxuma wàññi ci waaye teet ci jëfi safaan yi di fàttali li sëriñ bi sëriñ bi mag bi ne koor nekkul bàyyi lekk ak naan rekk cër yépp koy maase def fa sawmu an yasuuma kullu udwi an te loolu dafa mel ne wax ne ak di ko jëf yàlla aajoowul mu bàyyi lekkam naanam ku dul moom ndax lu waay yor rek moo ko ko jox lim digle ki ko def lay jariñ ki ko deful mu wàññi ko lim tere ki ko bàyyi mooy mucc ki ko bàyyiwul loru moom daal sañe digle di digle rek sañe tere di tere topp ko jëriñu ko dara mooy ko wàññiwu ko dara aajoowul ak lekkam ak naanam mooy rek mook ku wóorul la yamale du ko ci bindal tiyaaba من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه جليك أساكيك أجيك يب نون كم من خيشي تبسكي ييدف لن ينال الله لهومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم lu waay di def ci yii yépp na ànd ak ragal yàlla rek nu bañee fàtte yi ne koor am na ñaari farata jenn ji mooy yéene woor ko ci guddi gu jëkk gi bala moo jeex te mooy fajar jot wenn yoon weer yépp nga boole ndoo yéene lépp benn yoon dana doy ak doonte ne sopp nañ di ko yeesal guddi gune gu ñaareel gi ba ba muy jeex ñaareelu farata ji mooy ki woor téye boppam ci lépp lu yàq koor naan lekk jaxasoo ak yuñ mën a yéegal ci yooyu li tàmbalee fajar xarxaaju fajar ba jot so lan moo di so nag wuute am na ci am na ñu ne mooy suquutu si shamsi taxtal ufuq maanaam nga nek fo xamne ne dara làqu jano ak jant bi diko gis fa sa bët yam mu mel ne ni dug ci bir suuf ba jeex tak wala bu de géej mu mel ne luy dugg ci bir géej gi ñene bu lolu amé fam amé rek fa la ak jeexe laylu ñewna na te alxuraan summa atimu siyaama ila layli la wax fii man mooy tolloog waxtu wi waa dëkk bi di dolli ñeenti minit soog a dog am ñu jàpp ne loolu rek doyul laylu ñëw xañ na jege naa ñëw rekk waaye ñëwagul ndax mooy safaanu bëccëg te bëccëg mooy diirub jant bi ne fi akuk leeram njëlbéen gi ak leeram di ko fi jiitu mujj ak leeram di ko fi mujj kon jëmm ji dem te gi wàññikuwul ba tàkk du tax ñu mën a wax ne guddi ñëw na faaw la lëndëm am lu néew néew gannaaw suquutul xurus gannaaw bu jant bi duggee ci suuf si wala ci ndox mi liy wax kukk ñu soog di mën a wax ne guddi egsi na am na ñu gisee noonu mu kàllaf nag sañ naa seet li ko doy dalxelam ci diineem mu ne ca loolu ku ne sañ na ko koor am na it ñetti sunna dog gannaaw boo xam ne jant bi sona yaa xam nag yow loo jàppee jant bu so ak yeexa a xëdd tem jëkk fajar ak bàyyi lu amul njariñ ci wax ak ci jëf lu mu ci man di doon doon nekk rek luy indi tuyaaba nekki jàng alxuraan taxaw guddi addis ba nee na ku ko def ngir rekk gëm njëgal giñ ci dige jàpp ne yàlla dana ko ko ci defal te bañ caa jublu ñu gis ko ci loolu bañ jublu ñu dégg ko ci loolu dees na ko jéggal la jiitu ci bàkkaaram bàkkaar yu ndaw yi nag moo tax ñuy wax bakkaar yu mag yi moom tuub rekk moo koy far tuub it day ànd ak yéena bañ caa dellu waaye tuubandi ba koor gi jàll rekk du tuub du tax far bakkaar bu mag ak doonte ne wormaal koor gi la te loolu lu baax la yàlla na yàlla dimbale ban màng ko cenam gën a mate gën nee rafete ten fekk ko at yu bari tem dolli jàmm ak ndimbal sun kilifa gi sëñ Muntaxa gan ko fee yàggal te mottali mbooleem sumb yi maa ngi yalwaan it ci biir ci béréb bu tedd bii bu yaakaaru bii ku fi ne ak ku sama kàddu yegg ci moom ku manti doon muy ñaanal suñ mbokki jullit ya ca Palestine ak doonte ne lu war la ndax lu leen jullit mën a dimbalee rek war na koo def te ñaan benn jullit téléwu ko yàlla xam nag ña ca yelloon nangu la ñam cay nangul ak ñam dul nangul te yéex a gis jam ñaan li juddoo ci ñaan tekkiwul ne daa amul njariñ walla yàlla da nangu li laa ne woon naa ko ci dolli di jéggalu njuum te lu ci man di am waqad jàlla man laa yashu duma fàttee ndokkeel nak sama mbokki daara yépp ci bisu sëriñ soy bu bii jëm diko ci fàttaliku ak ñaanal yalla na yalla yalla rek na ko yalla fayal mais wax ne bu amon ñen ñoo xam ne seeni jëf ak seenu mbax may na leen bu jar kenn di leen ñaanal dana mëna wax ne ci la bok ndax leppam mi ngi ci digënté koor ak alcorane mi ngi àddina ci koor gannaaw ba alxuraan wàccee ci koor dundam gépp mu jeexal ko ci jàng alxuraan ak jàngale ko génn àddina ci koor yal na ko yàlla gërëm te fayal ko ñu jaare ci loxoom ñépp mu ngeen ji pay tem sàmmal nu ak njabootam defal nu ci lam ca bëggoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu